ba tey Muxtaar Sekk moom mu jur ku ñuy wax Masamba Anta mu jur Mbaytu Sekk mu jur Marema Sekk mu jur Soxna Meññaan sama maam ba tey Mati Sekk moomu moo jur Faati Balla mu jur Soxna Xari Buso mu jur mu jur Sëñ Baara Ñaŋ mu jur Soxna Mañaŋ Mati Sekk moom moo jur Aysa Balla mu jur Soxna Kanni mu jur Soxna Aminta mu jur Sëñ Abdu Xaadir mu jur Sëñ Moodu kon yoon yooyu moom fi indi waaye nag ba mu fiy dikk nag xaymeem suuf taxutoon mu fi ñëw xëy na dogalu bu yàlla ak lu mu nar a feeñal moo waral mu nekk ci xel ba loola génne ko ba ma dikkee itam la ma fa njëkk a xalaat mooy jàng daal alxuraan ñu ne ma kon sëñ bi kat fan batale woon na ko fi ba defoon nañ ko kon ma xam ne kon loolee mbiram mën na mu raaf ndax suñ mat loo mi nga xam ne moo doon taaw suñ daam Abdourahman ramata sekk mi ko jur Masamba Ramata moo ko jur nga ne kon suñ diggante Mbàkke ak sekk ak loo yàgg na yàgg goo xam ne ca fañ ca dafa yàgg nga xam ne kon daanaka foo dem ci banqaasi yoon wi da nga ko fekk ku bokk ci cekkeen koo xam ne fa mu nekk fa mu nekk njiit la fay doon waaye du doon ku fa yées loolu nag sant yàlla la ndax nit li muy man-man lépp mënul ñett kenn mënta tànn kile lay ki jur kenn mënta may sa bopp nga neen kenn mënta teggi dogalu yàlla bu bu ko defee nag léegi li am solo mooy li fi indi woon Sëriñ Tuubaa rek mooy xeeñtu borom bi ba ndam lii mu am ba képp ku laal ci moom foo nekk ràññi ko fa loolu loolu ndimbalul yàlla la ak ngëneel te ngëneel nag daa bokk ci liñ mënta fàggu waaye sama sama dëkk ci dëkk bi daal dama fee bokk ba noppi dogalu yàlla nag indi ma fi waaw. bi ma xam yow yaa xam ne cosaan sa cosaan ci kër ndey lu ci ëpp ak ci kër baay sax lu ci ëpp cekkeen la nga jóg ngir ñëw cekkeen wala da ngaa togg ba mu yàgg rek ñëw wala nga ñëw cekkeen yaa ko sabablu wala nu mu demee noonu. déedéet sëñ Mbaye Seck mi nga xam ne mooy moom la dëkk bi nekk loxoom moom moo jekk moo xalaat loolu ne bu sañoon daal ma ñëw fi am fi barab ba muy dëkkee di wóor na ma ne booba xaw ma xaw ma xaw ma lu may wut si daal ndax am na bu dee suuf am naa suuf su may de daara am naa ko waaye nag boobu lu ma yëkkati daal wax dëgg yàlla mënu ma la ko wax sëñ Fallou nag dafa waxoon sëñ Madloo taaw sëñ daam nekkoon ko la fa sëñ Touba denc yàquwut maxewut réerut fexe leen ba gis ko nag loolu moom sëñ Fallou waxoon daam ba moo tax njabootu sëñ daam Abdourahmane dañ fi def gàmmu kii leetul xadar gu xumb koo xam ne ñoom ñépp fii daje di dundal barab bi ak dundal guddi gi waaw waaye waaye sama sama dëkk bi daal xam naa ne mu ngi noonu rek. d'accord kon ginnaaw sa dikk fi noonu la rek yow bi nga fi dikkee yan yan yan ban jumtukaay nga fi nga nga njëkk daal di utilise ngir euh, fas yéene dëkk bi euh, dellu foofa gën bëgg-bëgg nga am wala lan nga fi njëkk def ak fan nga ci fan nga fi jëm. fi fi njëkk def daal mooy daari alxuraan laa fi njëkk xalaat ne bëgg naa mu doon jàngukaay boo xam ne taalu jàng mosu fee fay te am na diir bu yàgg boo xam ne lu ma téeméeri at lañu wax yoo xam ne taalub jàng musu mustafay ca kenn te loolu nag dem na xawoon naa dem ba xaw a gëmmu sama dikk fi ci la ko yàlla leeral leeralaate te fas naa yéene dootu dootu fay mukk ngir bëgguk sëñ Tuubaa rek laa ci dàkk bu ko defee ba ma ba ma dikkee dem njàngalem alxuraan moom itam dama ko def ngir barkeeloo ko rek te xam ne sëñ bi ci la tàmbali ab yam waaye nag ba mu ci nekkee ab diir rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf ko nit ñi bu leen yarati rek ci njàngam kese tërbiye googee nag moom laa fas yéene booleeg njàng mi ndax mburu buñ ko lëkkut kenn mënu ko jariñoo boo ko tàppee ba forme bi dikk te lëkkoo ko kooko jaay du ko jënd kenn soxlawu ko sëñ bi nag loolu la wuuteeg ñu fi fekkoon mooy dafa indi gën mbaax la fekk muy jàngale alxuraan dem jàkka ak bay dunde moom la fa Sëriñ Tuubaa fekk bi mu dikkee nag dafa indi saxaar ba mu tolloog ñoom mboolem ku ci baaxoonoom xel rek fob nga sa war waaye booleeg sa jëmm dugal ci moom moo la gën a gaaw dox gën laa mucc cim ndog gën laa it ëpp lu muy sëf moo tax dama bëgg loolee mu bëggoon muy fexe ba nit ñi xam yàlla am yàlla su kam kàttan ñu fas yéene li suñ mën taxaa di wax rek bu mu laal suuf loolu mooy mooy sama mooy sama xadaf mooy sama jubluwaay loolu daal la ci gën a bëgg tey ñaan ngeen ñaanal ma nag la ma ci mébét yàlla man ma ko may ci barkeem. waaw kon xam naa kàddu gi muy mujj laaj rek mooy eh, ndax eh, yenn jafe-jafe fekk nga ko fi ak eh, yenn bëgg-bëgg nga fi nga nga xam ne boo mënoo koon a ñàkk daal te fi sa pexe bopp mën la koo may. waaw jafe-jafe moom daanaka mën na cee bañ am ndax bi ma dikkee sëñ bi dafa maa gàttandu ndax bi ma na bi ma agsee rek sëñ Ibra Njaay mali moo ma jox barab bi ndax ci wanagam la bokkoon mu ne mën naa def fii daara ji ndox ma itam nit a ko war lu mu dikk courant bi itam doom sëñ fàlloo ko dikk ne moom fokk mu indi ko mu sëñ Murtala kon loolu jëf la joo xam ne man day mel ne kon awma ci digguma ciy jam te ñoom itam bi ñu dikkee yaatal nañ ma xataluñ ma xam nañ xam nañ li ñu am daal ñoom te it xoole nañ ma jimm sëriñ bi sëriñ bi nag ku ñu koy xoole yàlla na ko mat ci jikko ci wax ak ci jëf mooy tax kenn du yokki waaye nit fu mu dem wane fa weneen melo lu mu rëy rëy dañ ko yilif loo sew sew te yaru jëkkee sëriñ Tuubaa nag foo dem danga nga yilif ñëpp man nag bëgg kilifteef wala topp judd indiwu ma fi wax dëgg yàlla sëñtuwaa daal moo ma yëkkati du leneen